li nga xamante ne mooy aide Covid mooy li président jagleel famille artisanat pour dimbali leen ci mbas mi loolu lañuy ñuy ñëwoon def lancement première phase maanaam njëlbeen bi lancement boobu nag dafa jàpp vingt cinq milliards maanaam ñaar fukki junni ak juróom milliards yoo xam ne président la république moo ñu ko jagleel ñun ñi nga xamante ne ñoo bokk ci artisanat fii mu ne nii loolu dina laal cent soixante mille maanaam téeméer ak juróom-benn fukk junni artisan waaye nag lancement première phase bi mooy bii ñuy def tey jii bañ ko xaymaa ñi nga xam ne ñoo bindu cent soixante mille lañu maanaam téeméer ak juróom benn fukki junni artisan ñoo bindu ci aide Covid bi waaye nag première phase mooy bii nga xamante ne moom lañuy ñuy door tey incha allah fanweeri junni artisan ñooy nar jot li nga xamante ne mooy ndimbal boobu nga xam ne président la république teg na ko ci suñu loxo pour ñu mën leen koo jox ci aide Covid bi. di leen sant yéen ñëpp di leen ñaaxaat ci lii nga xamante ne mooy mbas mi mbas mi li muy faagaagal ci nit kenn xamul nu mu toll te dafa mel ni mbas mi moom kilifa rek la bëgg nañ góorgóorlu ba moytu jëne lu ñu tere ngeen ba ko ku nekk nag ci sa liggéeyukaay nga góorgóorlu ba méngale ko jamono ndax jamono moom moo wax ne dañuy war a moytu yéen seen liggéeyukaay tamit ngeen méngale ko jamono